di gërëm suñu baay Modou mii duma ko fàtte di wax yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla na ko yàlla may wér mag mu baax la mag mu baax la yàlla na ko yàlla yàggal ci dëkk bi mag mu bëgg diine la mag mu yar mag mu yaru da mag dana mag sax da dem bay am neen mën mel ne bokkut a yar mais mag mu yaru la mag mu bëgg ko yaru la mag mu bëgg diine la mag mu ko bëgg diine la kooku boo ko ab ngeen ko amee ci dëkk ñaanal ko rek mu gudd fan ak mboolem ñi nga xam ne nag ci jeetaay yi muy dem danañ fay ànd ak ñoom juróom dëkk adjoint nekku fi moom itam macha allah dafay teew ci yu mel ni yu bëree bëree bëree bëree te bu fa teewee danay wax ne ma bëgg a jël kàddu di gërëm mbokk mi nga xam ne moo jógee sàngil ànd ak mbokk mi nga xam ne yu wëlëra lañ démb muy Abdou Souley Ndaw ñu bàyyi seen yitte ñëw fekkee le si ñii seen bës bi bàyyi jugu mënuñ laa fay fu ñu geesoo gisee suñ ginnaaw te yàlla rek ay tax nga jog na du dërëm ñu ngi lay fay mbay Nazir yaa ak sa groupe bi jërë jëf kontaan nañ ci yéen macha allah zikar bi neex na sëñ Waly ma waxuñu ak Baye Diallo ñooñu moom ci groupe bi la.